dañu am projet boo xam ni dañ ci nar a liggéey si ñetti at comme nag loo loo gis da nga war taxaw di def ay taxaw saytu pour xool fi nga toll ba ñu dawalee at ñu ni bon dañuy toog ñun ak suñuy partenaire Terre des Hommes ak Ndey Jirim Alpha Dev ak euh, euh, ak euh, Eden pour xayma li ñu jot def si at mi lan lañ ci am comme résultat bu ñu mën a jëriñoo waaye itam lan la ñu am comme jafe-jafe ngir mën a xool nan la ñuy tegalaate suñu doxalin donc tey bi ñu defee xayma bi gis nañ ne en tout cas am na ñetti pàcc yoo xam ni am nañ fi ay résultats yoo xam ni lu ñu war a gën a euh, dëgëral la bi ci jëkk mooy fexe jàppale kuréel yi fi nekk fii Sénégal surtout si gox yi te ni dañuy aar xale yi maanaam ñu leen di woowee ay kuréel pour aar xale préfet yi ak sous préfet yi diriger ko ak yeneen euh, euh, nit ñi nga xam ne si société civile lañ bokk jàppale nañ leen ba tey lii nga xam ne mooy seen plan d'action yi ñu defoon pour jàppale xale yi xoolaat nañ ko gëstuwaat nañ ko waaye surtout fexe nañu ba ñu méngoo ak bëgg-bëgg wala jafe-jafe yi xale yi di am ci lii nga xam ni mooy période mbas bi ñu nekk muy Covid beneen euh, résultat boo xam ne tam pour ñun lu am solo la mooy. fexe nañu ba mag ñi ak xale yi di wax parce que euh, waxtaan bi moo mooy buñ ko deful rek si la jafe-jafe yu bëri waaye gis nañ ni bi xale yi ak mag ñi toogee di waxtaan tax na ba tey mag ñi gën nañu xam lan la jafe-jafe xale yi ànd na gën déglu na leen ba xam lan mooy seen i jafe-jafe ak nan lañ ci war a taxawee waaye itam gis nañu beneen résultat bi am solo tam bokkoon si projet bi mooy fexe ba xale yi seen bopp ñu nekk ñoo xam ni. duñu nek rek ay bénéficiaires wala ay cibles waye dañuy nek ño xamné ay acteurs la ci biir projet bi té effectivement sen kuréel li ñu am ñom jappalé nañ leen ñu def ay sensibilisation jappalé nañ leen ci yok sen xam-xam naka lañu wara liggéey jappalé liggéeyee jàppale nañ leen aussi ci li nga xamné moy sen plan d'action bi ñu def amna nak jafé jafé ñu am parce que li ñuy somb bëri na trop li ñuy liggéey bari na machallah donc pour ñu mëna gëna dëgeural naka lañ koy toppee naka lañ koy xayma ba nga xam ne ëllëg daañu mën a jot li nga xam ne moom la ñu sas loolu mooy li nga xam ne war nañ fa gën a góorgóorlu. boo demee ci fu mel ne dakaar ñun dañu dem Waxinaan Njaareem Limaamulaay ah dem euh, marché bu bees dem ginnaaw raay euh, dem Malika dem Yëmbal ah dem ba ñàgg parce que dafa nekk gox yoo xam ne effectivement jafe-jafe yi fa nit ñi di dund tar na lool. te boo te mag boo amee jafe-jafe rek il faut que xale bi nga xam ni mooy woy juróom wala moom lañ ko dénk il faut moo am lu mu ci yëg loolu tax ñun ñu tànn gox yooyu ni ci biir dakaar daañu liggéey ak ñoom boo demee Njaareem xam nañ boo demee Ndula rawatina donc li gën a tax ñu tànn gox yooyu mooy xam nañ ni jafe-jafe si wàllu koom-koom tar na fa xam nañ ni tam wala ak cosaan pour ñu li ñuy woowee violence maanaam bundu xatal xale il faut ñu liggéey ci lu bëri bëri parce que dafa am ay gëm-gëm yoo xam ni war nañu waxtaan ak nit ñi pour ñu xam surtout yan gaañ wala yan euh, wala lu baax loo xam ne dana ko indil xale yi. donc loolu moo tax de ba nga xam ni ñu tànn gox yooyu di fa yëngatoog ñoom gis nañ ni tam am nañ ci ay avancement